boo gisoon ma gëj a génn dama bëggoon a arrêté arrêté sama carrière ci làmb euh, di waajal sama jubilé nag quoi moo taxoon ma gëj a génn doon ko togg ak sumay encadrement quoi tey nag euh, jot na ma def sama jubilé ndax def naa ci làmb loo xamante ni peut-être mënu mënul weesu li ma defoon léegi nag ma préparé ak sumay encadrement ak suma staff ñu def benn waxtaan pour préparer suñu jubilé le 7 février. li tax ma ñëwaat mooy préparer pour def sama jubilé ndax dama am ay rak soo demee ba am ay doom yu toll nii rëg-rëg ay Ahmed Dem ay Issa Pouye ay Baye Mandione ay Brise de Mer ay Khadim Ndiaye numéro de ñooñu ñëpp ñuy say rakk di say doom ñii di say doom nga dem ba jël commencé jël âge li gën a rafet mooy nga def sa gibile oo ci diaspora beeg adduna bi yëpp ñu ñëw jàppale la nga def sa gibile nga waññee ko dem jàppale say rakk. loolu loolu dama noonu sax dootuma ci waxati quoi euh, mais loolu waaw muy muy loolu combat bi Sénégal yëpp xam nañ ko muy sama combat ak Yékini muy sama mbokkum njóobeen moomu quoi mais je pense que loolu moo ma gënoon a marqué ci suma làmb ci suma carrière quoi ndax euh, ci lañ ma mës jàppee ci mystique ba ma xam ne man mii jàpp nañ ma ak samay mbokku yëpp quoi mais sant naa yàlla ba yàlla dindi ko tey ji maa ngi def samay activité damay sant yàlla quoi. no du ma ko fàtte ci suma àdduna quoi loolu may dund may dee du ma ko fàtte quoi ndax dafa am ma maanaam loolu maanaam xam nga euh, nettali xuloo sax xuloo la. ndax dafa am samay xaritu kilifa yoo xamante yu ma jox cër la ñu nekk fii ci ndakaaru dama la ci ma sol noonu rek mais dañ ñamoon sax bu ma ci waxati waaw dañ ñamoon sax bu ma ci waxati ndax euh, euh, lu xasoon a am la am na te yaakaar naa ni ndax loolu bi muy am yàgg na lool quoi mais daj naa ci lu mburu dajul ci taal nag waaw lu mburu dajul ci ci ci lu lu fëriñ dajul ci mburu xam nu ñu koy waxeeti daj naa ci lu kenn am am na lu bëri lu ma yàqal mais tey am na lu bëri lu ma defal tey ci ci ay ngëneel quoi mais nag maa ngi koy sant yàlla bu baax quoi. waaw Modou Lo c'est un grand champion. champion la wax dëgg yàlla gis naa ni champion la te lamb ji mu nekk mooy roi des arènes neexul ba neexul mu neex mu naqari mooy roi des arènes kon dañ koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm defal ko Ama Baldé ba seen combat bi ñu bëri ko ci jàmm quoi. waaw Balla Gaye suma frère la suma rakk la moom itam nit ku généreux nit ku baax la di ko ñaanal combat bi mu jëm moog Bombardier yàlla defal ko ci jàmm remplir seen contrat quoi. mais pourquoi pas oui bien sûr euh, Yékini bëri na te Tyson ñetti yoon Yékini bëri na fekk Bombardier ñetti yoon loolu ci boobaa combat bi leen di boolewaat mooy wane ni Balla Gaye bu fekkee ni Balla Gaye daan na Modou ñu xam ni Balla Gaye moom mën Modou Lo mais su fekkee daanu ko nag wala Modou Lo moo daan ñu xam ni Balla Gaye mënul Modou Lo ñu bëriwaat bu ñu bëriwaatee su Modou Lo daanee muy 2-2. daan na ko ñaar yoon mais loolu du dara waxi mbër la rek. ndax gisoon nga Eumeu Sène taxawoon na fi waat ne du bëre Balla Gaye te mi ngi nii seen combat taxaw na loolu waxi mbër la rek mbër moom seen i wax moom bu seen kii tàngee rek dañuy wax noonu rek mais bu xaalis bi taxawee dañuy bëri quoi. torop sax yee si kooku toos démb rek démb rek daf dañ ko invité Kaolack mu ne ma par force moom quoi ma ne ko invité wuñ ma yow la ñuy invité mais lu ne ko ci. mais nag maa ngi koy nuyu en passage la euh, maa moom euh, suñu suñu suñu diwo day faj ñu bëri quoi waaw day day day def lu bëri quoi te àdduna. kaf la agréé ak waxtaan am na ñoo xamante ne nag ay défaillant lañ ay mbër yoo xamante ni mer dañu noo tudd nga mer salaamaaleykum nga mer foo dëkk nga mer ñooñu moom ñun defuñoo ak ñoom nen àdduna nag jàmm rek dañuy woote quoi xam nga tey jàmm xam nga ci la lépp xaj tey bu jàmm amul tey duñ mën a toog fii di waxtaan xam nga franchement waaw. non ab toon na mais maa ngi dégg sax liiru jaan di ko kaañoo naakaan liñ liñ la fay lépp da nga ko waroon fay c'est parce que Sénégal yi dañ ko comprendre gul 100 pour cent dañ ko jël nii rek mu ñuy daan muy neex nii rek mais xamuñu ni MMA il faut nga def ay discipline yu bëri ay arts martiaux karaté affaire yooyu il faut nga jàng ko doogu mën def MMA. MMA du làmb joo xam ne dañ lay daan rek arbitre ñëw yëkkati sa loxo de MMA dañ lay daan ba pare di la dóor tant que arbitre ñëwul am am ñeewantal ci yow àtte ak combat bi combat bi jeexul wala ñu dóor la ba nga fëgg fëgg tàpp bi bokkul ak làmb ji de làmb ji ngay dóor nit mu daanu nga dem ñibbi. wala nga buddi nit dóor ko suuf mu nga dem ñibbi mais élément da ngay buddi nit dóor suuf ba pare continuer di dóor tant que arbitre ñëwul àtte xam nga te kooku bu arbitre yéexee ñëw man boo xamee loo luñ la fay di nga ko toggam xewar xam nga te dalay wóor ne bombardier daj ñu lu mburu dajul ci taal boo gisee biñ ko dóoree ak ni mu dalee ci gris yi malgré que wuñ ko ko mais ah blesson rek bu muy tiré quoi. non pour encadrer sumay rek. pour encadrer leen jo am naa ci xam-xam tuuti quoi ndax man élément dama ko yàgg a seetaan rek depuis canal yàgg naa ko seetaan wax dëgg yàlla am naa ci expérience bu baax boobu sax kenn dugg ci woon nii mais tey tey euh, fi ma toll mayetuma man may demaat beneen export lu dul jàppale sumay rek mais xam naa ni ku ci mel ni rëg rek ak ñi nga xamante ni jege nañ ma ku ci def élément bu ma la boo ma ko yëgalee mën naa la jox ay xalaat yoo xam boo demee mën nga ko utiliser. business bi kay dañ ñu koo jiiñ rek mais ñëppay business bi Sénégal wax ma ko du business sax day business lu fii àdduna moom amul lu fi dul am business moom c'est que moom dañoo yor seen làmmiñ wu rëy rek ngaamur taamuñu ci mais fii ku dul business xanaa jaaykatu drogue yi nag ñi jaay drogue ñi jaay ay cocaïne ay ori nekk fi ay kilifa te waxuñu leen ñu ne ñun ñun mag seen ay parce que àdduna moo demee noonu nit lépp looy def di ci génne xaalis rek business la te xam nga li gën a bon mooy ngay jaay torok wala ngay trafiqué wala nangam mais àdduna loo fa gis ci lu baax lu ñuy def rek business la même jaamu yàlla bi ñuy jaamu sax su diggante ak yàlla intérêt lañ ci gis loolu business la ndax ku ci nekk yaa ngi jaamu yàlla ñaan yàlla ëllëg bi ëllëgee mu attali ci yéen man dugal a àjjana déjà loolu intérêt la kon loolu mooy àdduna. noo doon nañ ma wax ay combat yu bëri mais man maa bàyyi combat yëpp pour préparer def sama jubilé quoi. politiciens yu lakkale yi maire yi mais am na maire yu bëri rek ren man xaadim maa ko wax. maire yi liggéeyul seen gox yàlla na ngeen wàcc ci wàcc bu gaaw benn xob sax yàlla bu leen ko am maire yi nga xam jàppale wu ñu mbër yi ci ci yeneen gox yi ci gox goxaat yi maa ngi koy ñaan ci barke Serigne Touba yàlla na leen yàlla hmm? non non dañu seetaan mbër yu bëri ay booyu mbër yu war a bëri nga nekk maire bi jàppale ko ba élection bi ñëw nga bëgg dugg ci mbër yi di def say mitin mbër ñëw di bàkku mbër yi bañ leen dama bëgg bépp maire bu fi jàppalu mbër rek la yàlla wàcc di la sant bu baax merci di lay gërëm ko